Sénégal laa nekk tey Sénégal boo xam ne ni ñu wax fii la El Hadj Malick Sy jóge la Baye Niass jóge fii la Sëñ Touba jóge Sénégal boo xam ne xam sutura coloré lu mel première dame mun naa ne tey soxna Faye c'est une fierté pour la femme sénégalaise dafa doon soxna boo xam ne elle est à l'écoute des Sénégalais et des Sénégalaises gis nañ ko ci inondation yi man wàllu fondation musuma intéressé bu njëkk ba dama ne fondation dafa doon mission boo xam ne

amul té su nekkee sax amna war ñu omal suñu wajur war ñu omal suñu yaay yaay la dé té soxna président de la république président de la république moy premier instant de ce pays té war nañu ko ormal man de dama tiss si ban réew ñuy nekk lu Serigne Cheikh Al Maktoum doon wax rek réew bi ni sanko ko balaa sang yaakaar na lool mo dal Sénégalais yi ba Sénégalais jël lu ñaaw di ko teg si koo dame de la république madame Faye Sall mu ngi si yi mu ngi si yi. mu ngi si école yi inondation yi Marème fay day ñëw dugg benn kër fekk ay nit yu am problème mu ñëw jàpp leen dafa leen ay lal dafa leen ay laa def ko te moom moom rek laa gis si première dame boo xam ne day dox moom kenn si medd te kooku daal ñoo ngi koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ni xam ne yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam amoon na ay noon képp kuy mindeef moom mooy gën si mindeef amoon na ay noon yaakaar naa première dame soo amee ay noon noonu ñoo xam ne lu ñu rek c'est juste uniquement pour atteindre son mari, le président de la République, Yakarna Wani Delouat, à nos fondamentaux, à la restauration des valeurs républicaines, Moïlan, Bay, Mak, Rak. Je termine par le mot Abidaba Wahan, Réou, de Am, Mak, Am, Khalé. c'est la sagesse Khale c'est la fougue ni delluwaat si waxu mag yu baax ne waxu ay waxu Touba parce que soxna si yakarna lu def ah du mu ne keneen def mais guléet te ñoo koy ñaanal yàlla mais ko gën a fan yàlla sàmm ko te ñooy profité aussi pour ñaanal son mari le président de la république yëg ni depuis démb ba démb tey dafa nekkoon en contact avec benn cas benn cas de benn benn benn cas de corona positif yàlla def na mu ne négatif maa ngi nii di wax yéen sol ay masque ñooy ñaan bépp sénégalais ni xam ne corona lu am la na ñëpp sox sol seen masque c'est très important ni ñaan yàlla na sëriñ jënn ñëpp jënn ñaan église bi pour yàlla def ba lii jëni Sénégal jàmm salaam fi réewu jàmm la loolu amul lu may wax.